nee na faslun li day teqali ay wax li salaati neexal na julli almafrudati julli guñ farataal am na sabaatu axwaalin juróom-ñaari yëf ay xaala yoo xam ne murattabatin dañ koo toftale tu waddaa des na ko joxe aleha ñeent ya min ha ya alal wujju bi dafa nekk lu war toftale ko dafa war wa salaasatun ñett yi alal istihbaab dafa nekk ci anam ak sopp rek dañ ko sopp toftale gi nekkul obligatoire seetlu nga loolu nee na yi nga xam ne alal wujubi dafa nekk ci lu war awuluha ba ci jiitu alqiyaamu moo di taxaw bi xeyri sinaadin ci lu duhut ak wéeru moo ci jiitu sumal qiyaamu soo ko mënoon nga taxaw bi sinaadin ci wéeru foofu baax ba ci jiitu mooy nga taxaw te doo wéeru soo ko mënul nga taxaw te wéeru dégg incha allah